alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sang yu tedd yi toog fi yépp ci ron mbaar sang yu góor yeeg sang yu jigéen yi sang yu mag yi ak sang yu ndaw yi indil itam nuyoo xalifa Cheikh Ahmad ak nuyoo imaam Cheikh Cissé ak ñun waa yépp itam ñu ngi nuyu waa Mérina yépp di ñaan yàlla luñ bëgg ba am jotaay bii rek yal nañu yàlla rombale foofa ci ay may yal nañu yàlla rombale foofa ci ay ndimbalam yal nañu yàlla rombale foofa ci ñëweti yal nañu yàlla rombale foofa nekkal ñu ñu nekkal ko booba yàlla ah àddina oote ci kenn aayowu ko mu neex del jëmee ci lu la ne kenn aayowu la ko ndax yàlla moo la njëkk jox nekkal ci lu la neex ooteel jëmee ci lu la neex ko def def ko ngaa bi nga xam ne moom laa bëgg na yàlla subhanahu wa taala su ko defee nag ci ci kaw daawa daawa wa yaa qawmi maa liya ad'ukum ila najaati wa tad'unani ila naari tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa laka bihi ilm wa ana ad'uhum ila al-aziz al-ghaffar wa ana ad'uhum الى العزيز الغفار نار دعوة يوفنك ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار ليغا خامن يوي اوتي جيمي الى الله والى رحمه الله يوني فولن تك يوي اعداء احباب الدنيا ليغا خامن ادنا لا نيب ني نيب دا نيو ني سوي نون لا دا نيو نيو فور ياكني سوي ادنا مي فك دا نيو نيو فور ديفرال وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرمه عندما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا سين أوتي بي كن دوكو أوي آه وقول يو جاها من يفوق بي بي نتني من أي فنان سين أوتي بي كن دوكو أوي آه سين أوتي بي بوكو جي سيدة فمني نين يانكوي أوي وهي نانا عندما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة Pourquoi Pourquoi moi Te degla, ndax nit ku dem ba nga xam ne yàlla mooy wax ci làmmiñam kooku rek moo doon wax te fi nekk ni lii oto ñoom yëpp seen oto yëpp mooy addu ilallahi ala basiratin demee leen ci yàlla ci kaw xam-xam bu leer nañ xam-xam boo xam ne mooy mooy mooy dayoo xam-xam basira ah dafa koo xam mu leer mu mu mu mu mu ko jox nit ñi yooyu ngay woote dafa xotte ci kaw xott xottu rek seetal nag da ko dalee ci nuux euh, euh, ak ñu ñëw gannaawam ñëpp aadama sax ñëpp di oote jëmee ci yàlla seet leen seen jamono daa iman aqaliya la ñuy doon ñi leen di topp ñu tuuti la ñuy doon leen di contre ne seen oto bi di fi saxee ñu ñu ñu bëree bëri la ñuy doon ñu bëri ñu du jeex du xaaj waaye boo demee ci taarix danga gis ne daawatu nuux mi fi ba léegi kenn mënu koo effacé mooy udhu ila allah kenn mënu koo effacé ñooñu ko doon aayee ndoo ko oote kenn xamul ne kenn xamul ñoom ñu doon oote bi saxu amut ndax du meññi jamono bu nekk nag dina am groupe boo xam ne taxawaay ñooñu la ñuy taxaw waaye bokkul ñu ñuy wax bokkul ñu ñuy wax seen wax bi yëpp mooy tase nañ ne kii di muy wax duñ ko nangu rek jeex na ah kii li muy wax duñ ko nangu ah, kii di wax buñ déglu wax waaye ci seen biir a biir a biir xam nañ ne li muy oote kenn mënu ko fay jëlee kenn mënu fay jëlee ne allahu mawjudun waaxidun samadun bi asmaatihi kayf maa yashaa ba léegi ak lu mën ti wax ak fu xam-xam mënta àgg fu ñeme dañoo ñeme rek ñàkk jom moo tax ñuy waxee noonu waaye su fekkoon ne ñàkkuñ jom seen fit yi euh, euh, seen fit yi em na kon danañ xam li ñuy wax la ndax boo demee ci ñi gën a siiw ci ñoom gën a kawe gën a indil doomu ay yoon nit yoon yi boo ko tëddee boo ko jaaree di nga mucc ci sa àddina bi di nga mucc ci sa àllaaxira indi nañ ay mazahib falsafiya tëral ko mazahib almadiya mazahib alwujudiya mazahib yu you jeex gu xaaj yoo xam ne dañ ko tëralal ko nit ne lii mooy yoon bi nga xam ne ci la ci la jaar ci a Jean Paul Sartre agsi ci Albert Camus ah boo demee ñu nekk euh, c'est c'est des penseurs c'est d'autres de c'est nangam ak nangam nit ñi ñoo leen koy waxal waaye dëgg-dëgg nit da nga fay ah, amul dara loo xam ne mën na koo wax génneel ko nit lu mooy e ñàkkal jom ni man rek ma fi nekk ah, am naa xalimba am naa naa bindee nu ma mën naa sotte ko ci sama ci sama làkk mën naa ko bindee nu ma waaye boo demee foow la bind ñoom seen bopp nanguñu ko gëmuñu ko parce amut lu amut kenn mënu koo gëm li am loolu rek la nit mën a gëm mooy ne allahu mawjud allahu mawjud di di dinañ ciy warante dinañ ciy warante bon allah ci gën a kawe fi nekk bi mu nga nekk Amérique muy tudd euh, euh, euh, bon bu yàgg ba tey yaa wax yàlla amul yàlla amul yàlla amul est ñëw jox ay preuve mu ne d'accord parce que euh, voilà yàlla wax nañu ne ndox mu ne euh, géej gu neex géej gu saf xorom ñaari géej yi dañuy dajee te benn du du du yàq moromam nangam ak nangam mu ne indi leen ma ndox mu indi ko ndox mu def ci xorom ne indi leen ma ndox moo xam ne ndox mu neex la indi ko sotti ko mu ne mos leen ba xam mos ñu ne yàlla waxut lii yàlla géej la wax waxut ndox nga def ko ci kaas def ko ci xorom def ci waxut loolu daf ne مرج البحرين يلتقيان baynahuma barzaxun laa yabgiyaani boo ko teg sa xel nii yàlla ak kattanam mooy wax ah bu la neexee nga nangu bu la neexee nga bañ a nangu waaye nag bon léegi nag après tout ça là loo wax est-ce que yàlla am na wala amul mu ne mu ne science n'est pas encore dit sax euh، euh، euh، dernier mot science daal Euh, dernier mot alors bés bu ko science waxee nag <laughs> dinañ la ko dinañ ko waxal mais kuy fekkee kuy fekkee bés bi science di waxal doomu dafa ne ko yàlla amut kan la ah, amut amut nekkut ñu ngi def ay nag ay ay pexe yu bëri bëri bëri ay ay ay ay ay cercle cercle benn groupe boo xam ne ñu ci diggante Suisse ak ak ak France nangam ak nangam mbooleem luy technologie mbooleem luy borom xam-xam ci àdduna ñoom ñëpp ñu ko daje foofu mbooleem moyen yi nga xam ne soxla nañ ko pour gëstu ko gëstu dañoo bëgg a seet fu nekk ñuy jàpp <laughs> dañoo bëgg a fu yàlla nekk ndax ñu jàpp ko alors bu fekkee yaa ngi sa bopp. ne da ngay seeti yàlla foo koy gisee yow mii sa bopp nga romb ko ne dangay dem seeti yàlla foo koy seetee ndax seetal ci sa bopp rek yow mii ah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu man arafa nafsahu faqad arafa loolu ñu suñ sëriñ si jàngal loolu ñu suñ sëriñ si waxal te te te loolu mooy dëgg loolu naka lay demee naka lay demee kayfa yaarifu l insaanu nafsa ah ndax man may maax yi doomi bàyyi doomi yaa susaar ak yooyu boobu dara mais kayfa aarifu nafsi boo demee ci suuf yanke yi ñoo la koy firi xam nga tariqatu Cheikh Matiyaan tariqatu al faqih al fuqara la tudd tariqatu al fuqara moom la tudd boo demee nit yu kawe yi ñépp alfaqiru ila rahmatillah alfaqiru ila rahmatillah du du du faqiru ñàkk àddina bi du loolu loolu du faqr loolu nit ku tayal rek la parce que àddina bi yàlla may na la ko loo góorgóorlu rek am ko lu lu nit ut rek am ko su fekkee doog na si ut ko ci àddina parce que àddina bi ñëpp ko bokk waaye waaye nag am na yoo xam ne ñoo la gën a muus buñ ca xasee àgg moom dañ koy téye duñ ko jox keneen ah waaye boo ko utee yow tamit da koy am parce yàlla moo ko bind pour ñun doomu aadama yi li ci nekk yépp yàlla mu ne maa leen ko may waaye alfaqiru ilallah mooy nga seet sa bopp man lu ma am su ma jëmm ji man lu ma ci am nga gis ne amoo ci dara yaa ngi dund alxayul qayyum دق دق في حياتي دق وتعطونك السميع وسنقضي امن لي وتعطونك بصير سنقضي صدقك امن لي وتعطونك العالم دو دو دو ام خم خم لول ييب بو داجي سيو nga xamne yoy yeb aw ma ci dara parce que mom mako bon nak ki nga xamne moko mom mayal mako ana faqirun ilayhi fi kulli waqtin فقير إليه في كل لحظة حتى يمدني دائما بالنور بالحكمة بالعلم بالمعرفة وأصل كل شيء هو الإيمان به تبارك وتعالى بقى أمود أمود دارك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجمجم في الأجواء فورا وتارة تجاوب الموامي آه، فدفد ثم فدفدوا يهنا na بيت بو بوبو سيت لي سي شيخ بايما داجالي ييب سي ادني ات كو كومانسي وتخ الله بكل ني شو الله لله له هو ها هو غا امشي با اسي سي هه نك اتي بوك بيجا تيغي مي ام با نوبيل جبنا ات نكي درجة بوخمنا اذكروني اشكركم اشكروني وبعد شيخ هنا تستمد النور من الله تستمد النور من هذا الاسم العظيم الذي هو اصل النور وحقيقة النور وهو ممد الانوار الى كل من طلب هذا النور ah bu ma nekkee ci jaww ji mu jëm ji mu bu ma nekkee ci néeg bi mu jëm ji mu bu ma nekkee ci picc mu jëm ji mu bu ma nekkee ci àll bi mu jëm ji mu parce que jeex na jeex na jeex na c'est fini jeex na li li li li am rek mooy àgg nga ci martaba boo xam ne mooy a'la daraja mumkin an yasilaha insaanu fi taraqi fi daatillahi tabaraka wa taala wa huwa uskuruni uskurkum uskuruni uskurkum ها دجل الامتثال واشكروا بس بعد ذكره لك موي جخنا للب مطالبك الدنيوية والأخروية والذاتية والمع يب جخنا لكم وقد في بلا خسي ما نك لا بغو ولا ما يسنتكم موتا أذكرني اذكركم اذكركم انا الله اذكركم ايها العبد يقول لك هذا أنا الله بذاتي بقوتي بكمالي بكل شيء عندي أشكرك أنت أيها العبد يا لا تدل أنا بس كان الله من جلو يا لا دفلا تدل بي بي بألوهيته بربانيته بعلمه بمعرفته بحكمته مالك الدنيا وما فيها دول لا أخ آه، آه، رجال الله يوقف على شعبنا طيب. تقول لنا تقول لنا ميري لغي رك من الله يوقف مثال شلون ستل بتماي في تهاو يب اسك بن برم على البكن ميري بن برم على البكن ميري bo, Boh, zamku ampuji warsagat, nangama, nangama, nangama, nangama. Ay, ay, param alır yine ki milyarderle, valla milyonerle, merineli de kır. Ozu billah. Bakut, telinga bagınak. Yan koyam. Sa merine gi nga bëgg ci merine yi di ag yépp sa merine nga koy ag ci tabax ci yére ci lekk li nga bugg a lekk yépp lekk soos naan ataaya lekk pomme takk jabar te ana borom alal borom alal dëkkul ne ri waaye man kaana lillahi kaana allahu lahu faskuruni askurkum te man dama leen di tudd ndax man xam naa leen xam naa seen soxla ah allahu الله يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير ها alaa yaalamu man xalaqa wa huwa al-latifu al-xabiir kon boo koy tuddee bu lay tudd daf lay tuddee ne yaalamuka yaalamu maa taxtaaju ilayhi wa maa ta wa maa turidu an taisha bihi fi xayaatika dunyawi bu ko defee nga nga ñëw sanc dëkk mel na muy benn àll balaa am cinquante ans wala soixante ans mel na ni dëkk yépp ah ci développement am na ko surtout nag su fekkoon ne gouvernement dugal na loxoom tuuti jàppale waa dëkk bii dëgg dëgg di nga gis loo xam ne waaye nag comme que yow da ngaa wéetoo yàlla wéetoolu yàlla rek yàlla dina la defal loo xam ne bu bu gouvernement ñëw dafay jàppale lii fu mu jógee ah lii fu mu ko amal ah neex ñun dañoo neex كفرق ما ما ما ما ما فرق كده فيجا دروك كده فيجي كده فيجي كده فيجي كده فيدوب فيه كده فيدوب فيه تكيو يفهم انت دارا بنيو ام خرم رك دي ولا دي مبلل اللي رك بنيو يفهم انت دارا الو باسكو اذكروني اذكركم اذكروني لانتم الفقراء الي وانا الغني اذكركم بغنايه أشكركم بعلمي أشكركم بمعرفتي أشكركم بكل ما تحبونه في دنياكم وفي أخراكم ولكن أشكروا لي بعد ذلك أشكروا لي بعد ذلك سيكون ذكر الله أن تك ما يوي مي أن يب واتي سيو بون لوشي تك أشكروا لي بس كده الله خم الله خم مي وخه الله دعنا رب خم دعنا وخ خمنا وخ الله خمنا خمنا وخ خم بكو ثم jigéen ba waxee mu ne eh Pape Mar yàlla naan di tala <laughs> dafay comprendre amul problème waaye <laughs> alors su ko defee fekkee ne rek euh, yàlla moomu yaa ngi koy euh, moom comme ni ko xale bu jigéen waxee naan di tala dana xam li nga koy tuddee lan waaye su ko defee askurkum askurkum askurkum ولا تكفروني بعد ذلك من ناو تاي نك بولين ميدي تي يالا ديف مان يالا مايوما دارا مان يالا ديفرو ما دارا مان غيس نغي ما سوني مان غيس نغي ما جا فك لو نك لا لا يالا ديفال ولكن هذا عمل ابصار ولكن تعمل الصدور يالا بنو كو يالا نك يالا بنو كو يالا نك يوغي توك تي جوتاي بي تاي سينو موكو فاس يالا نكو يالا جوخ لير غي تي يالا نكو يالا يوك لير تي يالا نكو بيلال تام خالي mu mu gën a benn daa daana gën a dund nii ah, ah bu bu leen bu leen bu parce que lu kawe la parce que euh, du daje pour sikkar la d' accord daje di zikrillah zikrillah dégg ngeen li ma leen wax loolu yëpp ah bu amutoon pay lu dut uskuru li askurkum doy na ah waaye nag mi nga am yeneen yoo xam ne yu bëree bëree bëri yoo xam ne yonent wax na ko mu ne zikrullahi huwa huwa zirwa huwa zirwatul imaani billah moo gën mujahid fi sabilillah moo gën nangam moo gën nangam moo gën nangam loolu yépp benn baat boo wax sa moo gën zikrullahi tabaraka wa taala te loolu yépp lu baax la parce que mi nga ay sa àddina di ko neexal waaye nag bi ci gën a kawe nag uskuruni askur uskuruni askurku uskuruni wala takfur ah wala takfur kon te nag alquran bi dugg ak yow ci almaarij ah almaarij ya amanu istaayinu بالصبر استعينوا بالصبر المعراج له و... و... والصلاة والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ستلوى ستلوى ستلوى نايس نايس مرتب لولو لو لو لو لو كبير لولو يوم ستمدو مادما تدوما وما تدتنا لتدو bu ma la tuddee dinaa la defal ay teranga yoo xam ne bu ma ko defatee bu ko fàtte ndag ma sant ma sant boo may santee nag du nu la neex nga may santee santee ma man naa lay jàngal ni ma lay santee ba léegi ci uskuru uskurukum ah noo may santee mu ne istaayinu bi sabri wa salaati ak li aju ci sabri wa salaatu parce que sabru mooy xayaat kullaha parce que ñëpp ku nekk yaa ngi am looy muñ wala loo war a muñ ah, ku nekk am nga asalaat ñépp a koy def parce que yàlla ko sant yi ñii dañuy jullee nii ñii jullee nii ñii jullee nii ñii jullee nii ne yépp a ngi sama ashjar wal jibal wa zilal waaye nag sujud boo xam ne nag yow boroom xel mi yaa koy def yaa koy def ci kaw tànn ko defoo ko parce que dañ laa forcé ah, defoo ko parce que danga cee aj loo bëgg am da nga koy def rek parce que noonu la noonu la ma ko yàlla sante noonu laa koy def rek comme ni ko Cheikh Ibrahima waxee radiyallahu taala anhu mu ne bu waxtu julli jotee nga jóg julli parce que sang dee ko santaane bu or jotee nga oor parce que sang dee ko santaane looy def lu baax nga def ko parce que sang dee ko santaane xaar kuy defal sang nag xaaroo ci moom dara ah, defal rek après nag sang bi nag mooy xam ne jaam bii jar na أن أذكره أن أذكره بكل ما يريد لنفسه من العلم ومن المعرفة ومن المال ومن الدنيا العريضة إيه، يب من ما فوق أمال فسكلا أنت الفقير وأنا الغني وتصوفيان يعني كي يوم نفسي ما معنى أنت فقير ها وما معنى الفقر وما معنى الفقر يوم بني وقني افقر افقر حتى حتى تفقر عن الفقر حتى تفقر عن الفقر ها يقول فيها فقر فقر الدنيا بفقر الدنيا يعني الدرميرة آه، من آه، يقف الدرميرة نايس نظر رفت نظر بكن بدل نظر يعني يكفو تقول لنا فقير فقير ما يكون يكفو فقير ما يكون فقير ما يكون فقير فقه وخموط استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه دقي دقي يلا ركا ورا ها يلا ركا ورا بس كم ما خم لي مو wax خم لي li ده ñu لي mbëleel rek ah parce que kilma boo wax rek kilma boo escalier la boo xam ne daf lay tëbal nga dem ca kaw ah alxuraan baat boo jàng rek teg nga saran ci escalier boo xam ne daf lay tëbal nga dem ci beneen escalier tëbal beneen escalier moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu mu ne iqra was'ad iqra hmm, was'ad que ay kilima bu nekk rek escalier la boo xam ne boo ko jàngee rek mu yóbbu la ci beneen boo ko jàngee rek mu yóbbu la ci beneen rek la ba ba ba nga koo xam nga nga tëdd bëgg nelaw ne xaaral ma ma mos tuuti vraiment nelaw da ngay nelaw <laughs> yi dafay dem ah nga nga voilà loolu la parce que euh, jamaalu tawaajudi ma allahi tabaraka wa neexaayu nekkal yàlla neexaay boobu amut lu mel ni moom lu koy tënkalee lu ñu koy tëkkalee parce que moom la ñuy fekk aljanna neexaay neexaay boobu nga yëg fii ci àddina mu neex ba nga xamne bu la neexé nga dof bu la neexé nga nite bu la neexé nga am xel bu la neexé nga ñak xel ñu la neex nga mel ñu ne majzub ha parce que ya ngi dund fo xamne gal gàll ak law arafa al muluk ma nahnu alayhi la harabuna ñu xamoon liñ nekk danañ jël seen fetal ñu xeetal ñu pour ñu ci ha te loolu mi ci ci adina tam ñu xamne yoo ñu dund dund bu naaj boobu dund bu kawe boobu dund bu baax boobu dund dund dund طمأنينة القلب ومنكو واجي وخي سانك ألا بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب سيتل ذاك بس فاذكروني أذكركم إذا ذكرتك أعطيتك قلبا مطمئنا بي لأن بذكري تطمئن القلوب وتتطهر النفوس والأرواح روحوا أكبر كان كان ملوكو بيسكون فوتكو كان ملوكو بيسكون فوتكو bu tilimee amul saabu moo ko fóotee doo gis ndox moo ko fóotee waaye nag danañ ko fóot noo koy fóotee mu ne alaa bi zikrillahi tatma innu alqulub ah am na ñoo xam ne yatma innu yatum bi xayaati dunia tatma innu qulubuhum bi xayaati dunia am ñoo xam ne foofu la nekk du àddina ji gën a neexee rek seen xol gën a neex waaye neexaay boo xam ne du neex waaye neexaay boo xam ne lu neex neex yaangi ragal bis ñëw ñu nattu la ci li neexal ci àddina bo fay yak jàkkare ju yene ànd ya imaa ba nga dee yaa imaa ba nga ñàkk alal ci te moy te moy am ci àddina bari nag moom alladina amanu amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatmainu alqulub foofu rek la kenen amu yàlla confisquer nako pour bopam kenen ni ko am الا كونفيسكاسيون دي الله تطبين القلوب كان يامكو لنين امكو لودوت من يالله ماكو ام تن ماينا لاكو مان لاكوي ماي اسكروني اسكركم اسكركم كون كيب كو خامن مون لاي وو جميل الى ذكر الله تبارك وتعالى والى رفع كلمه الله دغ دغ ميغي اندك يو جيم ميغي اندك يو جيم دوما واخ الجنه صح باسكو الجنه دا فاي ah dégg leen rek mu euh, ne bi zikrillaahi daf may nit ñi loolu ñu ngi koy am ñu ngi koy am parce que nit lu mu amul ndimbal nit lu mu amul ndimbal ba ko def dana jafe ci moom lool waaye bu amee ndimbal nga xam ne yàlla sant na ko te jox na ko ndigal aussi yàlla sant na ko ko te jox na ko ndigal di ko def am naa ay jotaay yoo xam ne dinañ toog di ngomlaan guddi ba ba set waaye buñ ngomlaanee guddi ga ba ba set bu bëccëgee ñëw beneen guddi ñëw dañuy nelaw rek mënuñu dara ah, jeex na c'est fini parce que li nekk ci seen biir waroon a yeewu dañ ko yokk ne ko nelaw nelawal nelawal nelawal eh, ko defee mu ànd ak yow 24 heures di ko nelaw fii tey boo fi jógee ci jotaay bi boo fi jógee tat ma am na wala bu تعود بقلب مطمئن بالله تبارك وتعالى وانك قدمت خيرا وانك سمعت خيرا وان الله تبارك وتعالى هو ممد لعباده آه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وإن كنت كيف فضلنا ها آه. وهيك xamul لما في الله xam na انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض من كفره وللآخرة أكبر تفضيلا شوف تلول هيك ميري بايكو اذكروني أشكركم واشكروا ولا تكفر يناي شيو يب يانكوي يعني أمره تي بن جوتاي اذكر الله ذكر الكثير ما معنى ذكر الكثير لله تبارك وتعالى علماء الله يلنا لن يلا يرم يأكل لا يدل جلسن قلما ينك ذكر الله عشرين ألف مرة في اليوم ما يذكر كثير ذكر الله إثنى عشر ألف مرة في اليوم ذكر الله خمسة ألف مرة في اليوم ذكر الله كذا كنا كنا كنا إندي دي إندي سي ها هم غيرك مي مي مي مي شبه ها ذكر الله دجيح دخال ذكر الله أمود عدد ndax boo ko boo ko xasee am sa xol bi ci dëkk booy nelaw yaa ngi tudd booy yeewu yaa ngi tudd booy lekk yaa ngi tudd booy naan yaa ngi tudd loo gis rek tudd yàlla la parce que yàlla mooy tudd yàlla ci yàlla boo ko xamee noonu yàlla mooy tudd yàlla ci yàlla jeex su ko defee sa yëpp tudd yàlla la sa yëpp jaamu yàlla la waaye bànneex boobu ak wërsëg woowu boo nekkut min ummati muhammad al muhammadiyin daf lay romb dem comme ni la benn kii rombee dem noonu la lay rombee di dem ah boobu dee dem taxaw di gaare oto bu la romb rek fees pew pew pew pew pew nga nekk fa da da nga nekk di da nekk fi di saaga oto yow day def nga dara dañoo fees nga door a agsi voilà <laughs> euh, euh, euh, daawa a neex nga oote ci lu la neex comme commencé woon wax kum neex nga oote jëmee ci lu la neex hôtel jëmee ci Tànndeer hôtel jëmee ci ndaka hôtel jëme ci euh, meeting politique hôtel jëmee ci lu la neex kenn aayowu la ne la bul oote loolu waaye oote yépp yàlla def ci tànn benn ne boobu mooy oote boobu mooy oote mooy innama innama adu rabbi wala ushriku bihi أحدا لا أوصيك به أحدا هل لا يجيك ولا يجيك آه، يو نوضح بلي درنا نوضح بلي درنا من ما فاتح لما فاتح سنة بوكو سنة تيري فاتح ما فاتح سنة بوكو سنة تيري فاتح لما فاتح amatuñ ci man soxla kon bu ñu leen daggee ñun la bu ngeen ci bàyyi itam ñun la parce que maag ñoom tàggoo na ah danaa xariqtu fii jëlaalillahi tabaraka wa taala amatuma jot pour dara amatuma jot pour kenn ah euh, euh, wala tushriku bii shay shay an shay an boobu ci biir nga nekk ci biir moom nga xam parce que julli du du du wéetal yàlla or du wéetal yàlla euh, yooyu ngay def yëpp du wéetal yàlla wéetal yàlla moo koy def moo dara loo xam ne dina jaar suma diggante ak suñu borom du sama bopp du suma jëmm ji ba tax gaa yi nga xam ne àgg nañ foofu xalaaj mu ne dafa fàtte boppam boppam fàtte ko yëpp yëpp fàtte ko bëkk na fàtte ko eh, eh, yi fàtte ko tànkam yi fàtte ko baatam bi fàtte ko eh, ñu ñu ñu dagg ko ah dagguñ dara dagguñ dara parce que man xalaaj maa ngi أكثر ارتقاء وأكثر روعة وأكثر نورا وأكثر إيفاء تأثيرا في خلق الله تبارك وتعالى من بعده بل يجب أن تدعي حجاج حلاج قل يبدأ يكتبه بس كحلاج مو يكتبه نقول ريون كم كمات الله نقول ريون كم كمات بس كحلاج خرج من نفسه لربه فكان الله معه كون مع الله يكون الله معه من كان لله كان الله معه وتخطر aluda ismuhu fi dunya wa fi axirati yakunu min al muluki al muwallisin ña ko doon pexeel di ko rey boo ci déggee tur kenn da nga naan laanatullahi alayhi da nga koy ñaan yàlla doo ko bëgg da nga koy bañ waaye ainsi de suite parce que fazkuruni askurkum boo see àgg sa bopp bokk ci comme ko suñu daan waxee sa bopp bokk ci parce que amoo amoo ah اذكروني اذكركم اذكركم اذكركم بما لين تدينك سيت ال سيت ال اه تا تا يجي بايدان بيدي بنسان الله رضي الله عنه بو اوي تورني ديو داغي غيس دو فاي فيتي بلا اوشي دو فاي وا وا سامبا اك بايلي اك عمر كتا عمر كتا بلا اوشي داغي غيس كل شيء في حياته muy ngi uy si dara desul loxo yi bët yi tànk yi xel mi roxo gi yépp jeex na oo nañ ma maa ngi uy yi jeex na seetal na koo xam ne yàlla wax na ne askura askura askuru ni askura yemut lemut foofu yàlla emut ak yow ci mbaax wa iza zakartani fi malain askuruka fi malain xayrin min malaika gaa yi ne waaw malaullahi nu muy demee ndax mooy malaaka yeeg nangam ak nangam ak nangam ñu di malaullahi mooy waxtu yi nga toog commencé boo sikkar ak waxtu yi ngay sikkar boo sikkaree di nga génn foofu nga nekkoon nekk ci malaullahi tabaraka wa taala su ko defee waxtu woowu yaa ngi tudd sa bopp fekk yàlla yàllaay tudd la boppam ci sa kaw ci sa lan su ko defee haazal mala ah الذي وصل بذكر الله تبارك وتعالى الى ان خرج عن نفسه وعن ذاته هذا الملا هو الملا الذي يذكر يذكر يذكر يذكر الله فيه عرفت آه، يجب اي اي آه، ذي المعارج ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه من لا يعلم من لا يعلم وعلى السفاك direct direct ah comme ñu ne la alxatul mustaqim bi xatul mustaqim naa nga a kooku ñun la parce que ñun dañuy régler suñ dund bii nga xam ne dafa am lu ko conditionné lu dul ñun jant bi weer wi nawet bi ndox mu am meeg ndox mu ñàkk meek di ci patata président bi nguur gi euh, oh, oh yi la ceene dafa bëri yi la ceene dafa bëri su ko defee ceen yu bëri yooyu nag euh, quelquefois da ngay bëgg àgg foo xam ne buñ la ceene sax doo bëgg mu dem parce que gisoo ceen allah tabaraka wa taala ubbi li rahmatihi wa fadlihi wa am benn benn jaamu yàlla bu baax dëkk buur boo xam ne bu duy jot rek dafa yónni nañu ramasse nit ñi ñuy ramassé lu bëree bëri ci kaso bu ko defee di leen tasaare ay këyit di leen jox ay kayit kayit yi rey leen ko kii bàyyi leen ko rey leen ko bàyyi leen ko góor gi baax bokk na ci ñi for ci wetam for kayitu bàyyi leen ko ni mu jaaxle lool mu ko am loo xam ne réglé ko ci sama àddina bi te bu ma demee dafay yàqu suma gannaaw mu ne ko am sama kayit gi jox ko sax mu ne ko ah bu bi yow bàyyi la moo moo xew mu ne waaw waaye kii moom soxla ci àddina an aw ma njaboot aw ma dara man kenn rek laa bu ma dee du wàññi kii nag bu dee dafa yàññi moo tax ma ko moo tax ma jox ko sama poste pour ma déplacé أذكركم بشي بايكو شي أي خيول شي بين بارك خالي بو فاتلكو لحظة بو فاتلكو يالله بدف بو باخ لول رك يالله ما يكون ني ورون ري يب يو باي لين بابارا جوفين أي كار بسم الله بسم الله كولاي وو جي قدي نلا تعالوا إلى ذكر وتخ آه، إن لله ملائكة آه، يسبحون في النهار وفي الليل na yaqtabisuna majalisa zikri bu ñu gisee benn majlisu zikri ñu ootante ñoom ñëpp ni ñëw leen haza matlabukum li ngeen doon ñeen yàlla mi ngi nii ñëw leen jotaay sikkar ak ngi nii bu ko defee malaaka yëpp ñëw toog wër di sikkar wër di sikkar yonent yàlla ah naka suma jaam yooyu mu ne ñii na ñu baax lañ baal naa leen baal naa leen ñoom ñëpp seen bàkkaat ñu ne ah ah yàlla am na ku fi nekk kooku sikkar si indiwu ko woon dafa ñëwoon pour beneen beneen affaire moo ko indi ci jotaay bi euh, dafa ñëwoon pour seet si gelam dafa ñëwoon pour nangam dafa ñëwoon pour nangam ah yàlla ne ñooñu laa yashqa bihim jalisun bàyyi leen ñoom ñëpp ñu dem parce que ñoom ñëpp toog nañ te man maa tax ñu toog te man awma ma du may wàññi man damay yokk tax euh, euh, ku la oo ci majlisu zikri oo na la ci jotaay boo xam ne jotaay bu kawe la jotaayu xam-xam jotayu leer jotayu jàng jotayu mën a firi àddina bi ndax boo xamut allah allah doo mën a firi àddina bi ndax àddina bi yépp yàlla ko tënk ci baatu allah allah la ilaha illa allah nga beneen xam-xam mu ne la boo waxee laa ilaha illa allah mooy ne laa yaa ngi ci benn saxra boo xam ne xamoo foo jëm yaa ngi ci benn saxra boo xam ne amoo foo jëm nga nekk ci saxra boobu téy amoo foo jëm ah mu ne la i i ah am naa commencement ji ah dañ tey ma am fu ma jëm illa direction yow direction fi nga war a jaar ñëw waaye nag bi nga abe laa ilaha illa illa yu bëri surux ah yu bëri surux ñii ne illa al masih ñii ne illa al buda ñii ne illa confucius ñii ne illa ñii ne illa ñii ne illa ku nekk illa boobu am nga koo fa teg ne moom la waaye ñi nga xam ne nag yàlla tànn na leen waxtu wu nekk ñoom àgg nañ ci illa allah illa allah moo tax xam-xam yi xew ci àddina bi école yu bëri xew ci àddina bi bu ulama u muslimuuna yi tasewutoon ci andalus tabax fa ay jàngale jàngalekaay yoo xam ne lépp loo xam ne tewoon na Aristote tewoon na Platon ñoom ñëpp boo demee jàng nañ ko tas ko tasin boo xam ne dëgg dëgg bu toppatoon ak ñoom bon xam-xam bii Occident yi agsi duñ ci agsi yépp ci ñu ngi bàyyi ko ci allazina kaanu yaxmiluuna kalimata laa ilaha illallah ah mais alama kalimatu sidqi kalimatul ixlaasi kalimatul wafaayi kalimatul ilmi kalimatul jannati kalimatul shahaada yëpp ah baat boobu moo ko dajale kon mooy masdaru ilmi kulli shay'in ku yàlla may xam-xam ci laa ilaha illallah dëgg-dëgg amatu dara lu nëbbatu ci yow ku ko yàlla mayut nag yaay héemu ci xotti àddina bi ah benn tubaab daf ne bàyyi doc médecin Kaolack la woon bu yàgg mu ne bàyyi da ñëw sama bureau tey dinaa la won lu la yéem waaye ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko ay ñu dem bàyyi mu ne mu génne benn flacon bu yem ni baaraam mi dal di dagg ci karawam benn boppam benn karaw dugal ko ci flacon bi mu ne flacon bi am ni baaraam mu bàyyi ne ko mu yéemu nga de mu ne ko waaw yéemu naa de waaye du lii li ma yéem mooy ki defar ki defar lii ah ki defar ki defar lii ko moo dem mais lii yéemu ma parce que lu ma nekk la ndax laa ilaha illa allah masdaru lmaarifati wa masdarul ilmi kulli masdarul ilmi kulli shay'in علم الظاهر والعلم الباطن وعلم ما آه، التكنولوجيات وكله بعدما مصدره موي لا اله الا الله ذكرنا ديسلنا سر نوبي شي بلالال بلالال جي بون نيو نيان يالا شي جوتاي بي يالا امنا لو اوب لي بيغي نيان ني مونيو نيان صاح يو يالا نيغي ني رك يو يالا say jaam a ngi nii daje imaanan bi ka wa zikran laka wa wafaan li ixwatin lana sabaqu wa taraku lana hadha al ahda wafaan li ulaika ñu ngi lay ñaan yow yàlla yal na nga nekk ñun yal na nga nekk ñun yal na ñu dimbale yal na ñu musal boo ñu musalee yal na ñu sàmm boo ñu sàmmee yal na ñu teg ci suñu loxo loo ñu sàmmee te boo ñu sàmmee yàlla nga nekk ak te boo nekk ak ñun yow rek la yow yàlla rek yàlla yàlla barkeel yàlla nga barkeel suñu réew yàlla nga barkeel suñu réew yàlla nga barkeel suñu réew yàlla nga dolli suñu réew yàlla nga yàlla may ñu góor yoo xam ne góor ñu jub lañ ñu sell lañ ñu baax lañ mu teg leen ci réew mi ñu diriger ko pour réew mi waaye diriger wuñ ko pour seen bopp ak seeni famille yal nañu yàlla musal ci loolu yal nañu yàlla sàmmal suñu réew yal nañu yàlla dimbale suñu attekat yi dañu atte yal yàlla teg leen ci yoon yoon bu jub yoon boo xam ne sénégalais bu nekk dina bëgg a nekk sénégalais ndax gis na lu ko jaral bu nekk sénégalais gis na màndute gis na njub gis na mbaax gis na lu nekk nga àgg fa war a àgg yal nañu yàlla may góor ñu mel ñu amee ñu suñu yàlla góor ñu jullite góor ñoo xam ne ñuy def sàmmuñ ci ut ut ut utaat mais dañ cee sàmm yàlla bi nga xam ne moo leen teg ci place boobu ah ngir ne leen sàmmal leen suma jaam yi bon ëllëg yooyu gën a jafe xisaab yooyu gën a jafe xisaab ci kanam yàlla ah, yal na yàlla sàmm ñu euh, suñuy doom ak suñuy sët yal na yàlla sàmmal ñu suñuy kër yal na yàlla sàmmal ñu suñuy njaboot yal na yàlla yokk Médina yëkkatiku yal na yàlla yokk Médina xam-xam yal na yàlla yombalal Médina ci lépp loo xam ne ñu ngi koy uti ngir euh, dundal dundal lu ñu dundalee seen dund ak lu ñu dundalee seen bopp ak lu ñu dundalee seen njaboot loolu yépp yal na ko yàlla yombal yal na yàlla may ñu euh, nawet daa ngi nii ñëw yal na ñu yàlla barkeelal suñ nawet may ñu góobeef bu barkeel yal na yàlla taxawu taxawu réew mi yépp ci góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi te yàlla na ci jox jigéen ñi cër boo xam ne moo gën a bari li muy jox jigéen góor ñi ah parce que jigéen li muy jëriñ ci àddina bu fi nekkutoon àddina bi dina dina jafe parce que boo suuree moo tax oselem bu mu rafet moo tax oselem bu mu set moo tax boo duggee sa néeg mu set moo tax loolu yëpp xaalis bi ñu ko jënd waaye yàlla may na la ko ci ñoom bon nag ñu ngi leen di ñaan ñoom tamit yàlla yàlla sàmmaleen seen njaboot sàmmaleen ñoom tamit yokk leen bëgg lu baax yokk leen bëgg a yëkkatiku sàkk lu baax yàlla mën na loolu yàlla na ko yàlla def yàlla na yàlla yokku maqaama Cheikh Ousseyn yàlla na ko yàlla boole ci nga xam ne dañuy dem rek ah dañuy dem rek comme la naar ba waxoon wa kullun xaaraba xayda faxlihi fa ana atlaqtu fa huwa saaribu dem rek ah ci xadaratul ilaahiya rek di dem rek yal na ko yàlla defal loolu yal na yàlla wàcce barkeem ci guddi gi nga xam ne moo ko sos bu ñu ñëpp ko yal yàlla dëgëral njaboot gi dëgëral doom yi dëgëral soxna yi yépp ba nga xam ne lii ñu leen bàyyee boole maag ñoom ne naa ko ànd ak ñoom kenn du ci uruj kenn du ci dellu gannaaw kenn du ci tayal yàlla ñu ci yàlla dimbale salaamu aleykum wa rahmatullahi